wax joo xam ne li nga ci jublu mooy séparer diggante nit ki ak nit ñi wala séparer ko ak xaritam wala mbokkam wala do yàq daal wala jëf joo xam ne li nga ci namm li nga ci jublu mooy yàq diggante nit ak nit kooku baaxut léeg-léegi nag ay intérêt yu bari dañ ci dugal nit bokk na ci li gën gaaw pour nit di yàq deru nit muy politique politique moom ki nga bëgg a wàcc daal noo def ba jaxase ko askanam rek noonu ngay def kon politiciens yi nañ xam ne loolu rambaaj la waaw wax dëgg baax na waaye dëgg sax boo ci jubloo yàq diggante xamatul njëriñ moo ci benn tiyaab ndax yàlla bëggul ko gàcceel mbokki jullit yi bëggul ko gàcceel jaami yàlla yi bëggul ko yàq ci kaw suuf moo tax dëgg sax boo koy wax ne yàlla tax waaye bu ci jublu yàq diggante nit ki ak nit ñi wala yàq digganteem ak benn nit <coughs> loolu mooy dee mbaaj lu yàlla bañ la lu yàlla xaraamal la xala woon allah yàlla taala ka ne wala tuuti bul topp yàlla wax ak yonent bi ne ko bul topp ñu amee melokaan yi kon fexeel melokaan yàlla tudd fii bañ ko amee benn bi mooy wala tuuti bul topp kulla xallaafin bépp gëñaa koon koo xam ne nii lu wax ne billaay barke yàlla di <laughs> génn rek di génn rek di génn rek billaahi wallaahi di génn di génn yàlla ne wul topp kooku génn gu bëri baaxut mahinin ku doyadi ku doyadi ku xeebu d'accord rek mooy nekk di gëñal nit ñi ab kilifa du nekk fii lu mu wax gëñ waaye ku xeebu ku doyadi rek mooy nekk fii lu gëñ ko ndax lu mu wax yaakaar ne kenn gëmu ko xam nga yaakaar ne gëmuñ la moo tax ngay gëñ lu bëri gëñ lu bëri moom fenkat a koy def moo tax mahin sa am nañu ko firee fenkat bul topp koo xam ni fenkat la boo xam ne foo ko fekk mooy gëñ pour ñi gëm ko <clears throat> wala tuti bul topp ku la xalaafin bépp gëñaakoon mahinin ku doy di wala mahinin kay fenkat <clears throat> hammaazin kay jawaakoon bul topp koo xam dafay jëw nit ñi ñu ne jëw ci loxo moo di hamzu dégg nga ñu ne jëw ci làmmiñ lu mën a xew bul topp kat boo xam ne dafay yàq deru nit ñi rek macha in kay doxaakoon bi nawi min ci rambaaj bul topp koo xam ni dafay rambaaj di yàq diggante nit ñi wax luy defar diggante moo gën wax luy yàq diggante wax bi bu dee dëgg la sax waaye dafay yàq diggante ba hmm? Hmm. te la mu yàq kat mooy ëpp la mu jëriñ ñàkk ko moo gën waaw ñàkk ko wax moo gën ndax bañ a tas ab diggante yàq diggante daan na jëral mag ñi léegi-léegi bañ wax loo xam ni dëgg la wala bañ a def loo xam ni dëgg la ngir bañ tas diggante yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba nga xamee ne yàlla xoo ko ci mi xama mu war a dajeeg moom dafa bàyyi Haaruna ci nitam pour ñu pour mu wutu ko Haaruna yonantu la xam nga nan la gaa yi def gannaaw Moussa dam jël ay yëkk maanaam wurus yi nga xam ni takkaay yi nga xam ni waa Xipt mooy nitu Moussa yi ñoo ko doon abbu ci waa banu Israël parce que ñu amuñu dara bu ñuy ceetale lu ñuy def dañuy abu mbokki firaar yi mooy waa banu Israël yàlla xalak mbokki firaar yi ñoom ñu gàddaay fekk ñu ngi abbu takkaay yi dellooguñ ko Moussa Samiri yu ne <clears throat> abal leen ma takkaay yi daganut ñu jox ko takkaay mu defar ci benn yëkk xam nga moom day gis jibril ndax jibril la ko yar mu jël ci tànk fasu jibril yi ba muy wax ak tànk fas yooyu ci la tubb ko ci yëkk bi yëkk bi commencé di sap comme ni yëkk yi def te moom moo ko defee mooy leen li mooy yàlla ñu di ko jaam <clears throat> Hmm? di góor di fecc rek moo tax fecc ngoo foofu la xaraamee bu penc bi yàlla noonu lañ ko doon jaamu di wor di fecc rek hmm? xaw ma yàlla duñ koy fecc rek yàlla soo loolu fecc ah su ko defee Moussa Samiri moo def loolu xaaru na yonantu la waaye ba mu xamee ne bu waxee waa bu isaare taqali ko ñi jaar fële ñi jaar fële te xam na ne Moussa ngi ñëw te bu Moussa ñëwee dafa noppi nga xam na ne bu noppee solution dana dana am te bu waxee ñu tàqali ko nii fitna bu bari mën na cee juddu mu noppi bu Moussa ñëwee ne ko lu tax taxawoo ni nga war a taxawee am ñu weere dafa jàpp ci sikkiñ bi ak bopp ba commencé xëcc mu ne ko yëpp na umm yow sama doomu ndey laa taxul bi lexeet yi bul tee sama sikkiñ wala bi raas yi bul tee sama bopp inni xachitu an taqula farraqta bayna bani israila dama bañ nga ne yaa teqale diggante banu israila kon soo gisee ne lii sax musiba la ndax benn musiba gënu rëy bokkaale yàlla yam jàmm yëkk te xam nga ne yàlla mooy yàlla dangay ngay yónantu noppi ci loolu musiba gënu ko rëy boo xamee musiba boobu boo ci waxee nit ñi tàqali ko te boo noppee dana am solution buy judd ci kanam nga noppi ba xaar solution boobu moo moo gën bu <coughs> fekkoon nag yonent yàlla Moussa nekku fu moom ah kuréel Haaruna buy nit ñi tasaaroo géer du jug sax dana wax parce que nag doo bàyyi nit ñuy ñi duñ tas te dana bon loolu sax moo gën parce que la yàlla bañ a nit ñi <coughs> loolu dëgg la gu Haaruna waroon a wax. jëf ji mu waroon a taxaw la muy dëgg mais dafa def attention rek parce que xam na ne yonent Yàlla mu ngi ñëw te bu waxee ni ñu tàqale <coughs> kon yenn dëgg yoo xam ne boo ko waxee la muy yàq mu ëpp la muy jëriñ dana tasaare nit ñi dëgg yooyu noppeeku moom moom moo gën su fekkee nag dégg nga <coughs> dëgg yu mënul ñàkk la yoo xam ne boo ko waxoon nag mbir mi du baax su boobaa mën nga ko wax hmm. <laughs> nit kuy paraal nit ñi pour rey leen c'est normal nga xam ne kii li kii dafa bëgg rey nit ñi ndax boo ko waxul mu rey nit ñi waaw di rek nit dañ ko ci jéppi waaye moo ko def hmm? kon balaa ngay wax rek xoolal li ngay wax la cay juddoo la bu dee dana teqal diggante xoolal lor juddoo ci teqale kooku juddoo ci la ñuy def ba nga cee wax ban moo ci ëpp bu juddoo ci teqale mu ëpp waaye hmm? loolu rambaaj la yàlla bëggul rambaaj rambaaj mooy lépp lu yàq diggante <coughs> mën naa yéen kay terewaakoon lil xëyri ñeel lu baax ko xam ne alal ju am du ci may du ci jox kenn lu baax lu am du ci jox kenn ku bëgg a jub mu bul jub ku bëgg topp yonentu mu aaye ku bëgg topp yoon mu baax mu aaye la <laughs> mooy kuy tere nit ñi lu baax am daal dafa toog ci yoon bi rek di gàllankoor nit kenn du am lu baax du dimbale kenn ci lu baax te kenn du digal kenn mu sóobu siraatul mustaqim yàlla leen bul topp ku mel noonu moo tax dinañ aji jégg doyoo maanaam koo xam dafay tooñ nit ñi rek kooku bul ko topp asimin ka aji bakkaar koo xam ne toujours ma ngay def bakkaar rek wantu leen ku xiis xol koo xam ne xol bu bon la yore baada zaari gannaaw loolu zanimin ku ràññeeku la ci lu bon wala zanimin kay wootee ci bon la wala zanimin doomi jaal la zanim mën naa nekk ku ràññeeku ci lu bon ba mel ni gàtt goo xam ne dagg nopp ba nopp ba lang nga xam yomba xame <coughs> diggante jullit ak xéeféer noonu la yomb a boo leen xool rek xam ne kii jullit la kii xéeféer dégg ko defee rek zanim mooy borom gàtt gu borom nof bu lang ba maanaam ku ràññeeku ci lu bon wala zanim mooy mu ngi wàcc ci axnas bun shureyq ñeneen mu ngi wàcc ci walid bun mugira ñeneen ngi wàcc ci abu lu mën a xew daal borom jikko yu mel nii bul ko topp koo xam ni dafay gëñ rek di fen di gëñ rek fen wara ñu mën a koo fen boo waxee mu gëñal la ci yàlla ne dëgg la kooku mooy xallaafin mahiin gëñaakoon boo xam ne dafay fen koo xam ni foo ko fekk mu ngi jëw doomu aadama yi danañ ñëw ci buntab jëw lu yàlla bañ la koo xam ne foo ko fekk mu ngi tas diggante yi koo xam ne foo ko fekk du nangu mukk nit ñi am lu baax dafay gàllankoor lu baax foo ko fekk ma ngay tooñ nit ñi foo ko fekk ma ngay def bàkkaar yore xol bu tàng lool Mm, ba pare ràññeeku ci bon dégg nga ñu mel ni bu leen ku ci amee benn jikko yi moom seytaane buy dox la koo gën a yéeg ci kaw suuf <coughs> ku ci am benn nag yor na jikko seytaane mooy tukk lii la wax yonente bi sootul xalam kon nar mbaa jëngoogu laa ji aaya na ko muy lu bon wala wax na taala yàlla ma ko mi maa yàlla fi du tudd moom doomu adama min qawlin ci benn wax illa ladayhi lu mooy nekk na fa moom raqibun aji fooglu atidun aji teew yàlla nee na kàddu goo yëkkati yow doomu aadama xamal ñu ngi la séq kenn ki mooy raqib mu sa kanam keneen ki muy atid mu sa càmmooy ñoom ñaar ñëpp ngi teew di bàyyi xel li ngay wax booy wax lu baax ñu bind teew lu bon ñu bind su fekkee kon kaddu goo yëkkati am na ñaari malaaka yu bàyyi xel kàddu gi lan moo ci jiitu ndax lu baax wala lu bon te su boobaa danañ ko bind balaa ngaa wax war nga koo xool war nga koo xool hmm? xam nga fekkoon président ab nit rek président rek moo yebal soldaar ñu sopp la looy wax ñu bàyyi xel su dee wax ji état da ko aaya ñu daan la <coughs> bu dee état aaya wu ko nag ah wala boo wax ji état rafetlu na ñu bind ko wax jox ko ko mu jox la ci kado xam nga li ngay wax danga ko xam de yow tamit balaa ngay yëkkati benn kaddu xoolal li nga yëkkati lan la ak lan moo tax nga di ko yëkkati surtout li tax nga di ko yëkkati <coughs> ak lan moo ci juddu ndax wax juy taalam réew yàlla bëgg ko jëf juy taalam réew yàlla bëgg wax juy yàq yàlla bëgg ko jëf juy yàq yàlla bëgg ko lii la dëgg la waaye la muy yàq bu ëppee rek baaxatul hmm? kii dafay naan sàngara boo ko aayee ñu rey fi nit bàyyi bàyyi leen ñu naan sàngara ndax naan sàngara moo gën a oyof rey nit waaye boo aayee naan sàngara wax nga dëgg de la jee juddoo mooy lan musiba rey léegi rey ak naan sàngara bu jigéen gën a bon rey kon su ko defee euh, wax ji ngay wax bu dee lu yàq la yàlla nee na xool ko ndax malaaka yaa ngi koy bind de <coughs> kàddu goo mën a yëkkati rek bàyyi ko xel suratu xaaf wa qaala wana taala yàlla ma ko ne yastaxfuuna dañu nëbbatu ñoom naafiq yi mine naas ci nit ñi wala yastaxfuuna waaye amun ñoo nëbbatu mine laay ci yàlla wootu fekk yàlla maamu mu ngi ànd ak ñoom wala boog wala yastaxfuuna yàlla wootu fekk yàlla maamu mu ngi ànd ak ñoom daw gàcc yow nit ñi bëggoo ñu gis la te yàlla ngi lay gis moom faale woo ko <coughs> xanaa booy rus yàlla gën a yàlla nga rus ko yaa ngi laqatu nit ñi di def lu bon waaye yàlla mi nga xam ni moom mu ngi teew laqatu ko yàlla mënoo ko nëbbatu dañ ci déggee ne defar sa cëru zahiri cër yi nga xam ne moom la nit ñuy xool di wax lu baax di def lu baax ñëpp yaakaar ne ku baax nga fekk sa xol baa ngi tirim nukk te moom la yàlla xool kookit ku mel noonu dugg nga ci laaj yi yaa ngi nëbbatu nit ñi te nëbbatoo yàlla li nga xam ne mooy barabu xool waa yàlla ci yow moom nga war a gën a defar mooy xool fexe mu set lépp looy defit xamal ne yàlla ngi jàkkaarloog yow nga moytu ko bu dee nit ñi dañ leen rus yàlla ak nit ñi ku gën a yelloo rus la moo tax nga rus nit ñi parce fonk nga leen bëggoo ñu xam ci yow lu ñaaw lu tax na ngay nangu yàlla mi la bind moom di xam ci yow lu ñaaw ngay def lu ñaaw mu jàkkaarloo yow mu benn kers te yow sa kanam waajur sax rus na cee def loolu hmm? danga ragal nit ñi bañ ñu lor la nit ñi ak yàlla ku ci ëpp kattan ku ci gën tatam mbugal yàlla lu nga ragal mbugalam nit ñi te ragaloo mbugalam yàlla ta allahu akbar maanaam ba nga waxee allahu akbar yàlla gën a màgg rek <coughs> mooy boo rusee nit ñi yàlla nga war a gën a rus boo ragalee nit ñi nga gën a war a ragal boo yaakaaree nit ñi yàlla nga war a gën a yaakaar ana lan moo tax yow doomu aadama ngay nëbbatu nit ñi te nëbbatuwoo yàlla <coughs> feebar rek yàlla yàlla faj suñ waaye xol bu feebar mooy waral loolu yàlla ne dañuy nëbbut nii te duñ nëbbut yàlla oo yàlla maa mu ngi ànd ak ñoom sootu nisa lii mooy laa yi nga xam ne ñoo ci wàllu rambaaj <coughs> hadis yi nag moom la yàlla wa qaala wax na rasulullah yonent yàlla <coughs> jeex na du lambaaj dafay teqal diggante soppe yàlla teqal ko li bëgg moom it al jazaa min jinsil amal ki nekk la ngay def la yàlla fay yaa teqale diggante ñu waroon a nekk benn nit ñu waroon a ànd nga fexe bañ féewaloo nit ñu waroon nekk benn nga fexe bañ taqalikoo nit ñu waroon a juboo nga fexe bañ jubuwaadi ku nekk di lor sa morom yàlla ne yow it aljana nga bëggoon bëggoon ngaa jokkoo ak moom man taqal naa rek aljana yow doo dugg aljana kon ku bëgg jaay aljana jëndee ko safara nekkal rambaaj ci teqal diggante nit ñi la nga def du la jëriñ dara parce que nit ñi tàqale jëriñu la dara nit ñi bañ nit ki jëriñu la dara <coughs> ana nga jublu ci nit ki nit ñi bañ ko ba tax nga yàq deram ana nga jublu ci nit ki tàqale ko waayam ji ba nga wax lu ñaaw seen diggante ba ku nekk bëggutu xool moromam ana lu tax benn da ngaa lor kenn ci ñoom ñaar te yow lor nekkul sa loxo ndax lan ndax xul lan yusibanaa illaa ma kataballaahu lanaa yàlla nee dara du xew lu mooy lu yàlla dogaloon amul luy dal nit ñi ci kaw suuf lu mooy yàlla dogaloon nag kon tàqale diggante bi yow amoo ci benn intérêt ndax boo tàqale diggante bi te yàlla dogalul lor ci nit ki du loru mukk ba pare yow nga ñàkk ci aljana tàqale nga diggante nit dégg nga yàlla dogal na lor seen diggante danañ loru gaa waaye yow dem ci ñàkk aljana boo defutoon loolu tamit réer lañ loru ana kon def gi nga def lu mu jëriñ rëmbaaj kat loru lu may boppam wala bàkkaar kat <clears throat> wala kuy fexeel nit ñi lu ñaaw loru lu may boppam ndax mbiri ndogal la du sa jéem gii mooy tax yàlla soppi ba lor kum bëggutoona lor wala mu may kum bëggutoona may ma asaaba min musibatin fi ardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabraha la yàlla wax yàlla nee benn musiba du dal nit ñi ci kaw suuf wala seen yaram balaa ñoo feebar balaa ñuy xiif balaa ñuy jaaxle balaa ñoo mar balaa bekkoor di am balaa taw di ñàkk wàcc loolu yëpp nee yàlla nee na fekk dogaloon naa ko ba pare kon ana lan lay rambaaj di jëriñ mooy xañ sa bopp aljana yonent nee rambaaj kat kon rambaaj ngoogu ku nekk na ko moytu رواه في الحديث البخاري ومسلم وقال وانا صلى الله عليه عليه وسلم ذلكم يونت نينا الحمازون جوكر يا <coughs> جوكر يي ndax jëw ak rambaaj daanaka benn la ndax booy jëw nit rek di wax ci moom lu ñaaw yaa ngi teqale digganteem ak nit ñi ña ngay wax ak yaa ngi bëgg ñu bañ ko yaa ngi bëgg ñu ñu bañ ko alhamaazuuna jëwkat ya ca seeni loxo di junj seen loxo wala seen làmmañ wala ñu ne xamdu mooy jiw rek wala maazuna ak piiskat ya mooy ñëw jee jëw seen bët <coughs> di ayibal nit ñi di leen jam wala mashaauna ak ñooy dox bin namimati ci rambaaj yàq diggante yi moo xam dañ koo jëf wala dañ ko wax am na loo xam ni ay plan la yu def yoo xam ni la cee juddoo rek mooy ñaar ñu waroon a bëggante bañante wala mu ñëw wax la lu bon wax kële lu bon yéen ñaar ngeen mujj konturante bañante tàqali ko yàlla bëggul nit ñi tàqali ko nit ñi tàqali ko leen ñu seet ña alxayba ayib rambaajkat yi ñooy ñan ñoo ñoo fekk koo xam ni amul benn ayib ñu taqal ko ayib yi dul jeex fekk borom jikko ju rafet ñu ne ku ñaaw jikko la fekk kuy wut yàlla ñu ne intérêt lay dox fekk kuy def te yàlla tax ñu ne dafay ngistal fekk borom xol bu set ñu dafa añaan fekk wax ko dëgg ñu ne dafa soxor jël ku amul benn ayib taqal ko ayib yi dul jeex jël ku amul ayib créer ko jikko yoo xam ne yaa ko sa bopp yow taf ko ko ngir lan ngir bëgg nit ñi bañ ko ngir bëgg nit ñi contre ko ngir bëgg bu kenn bàyyite xel yàlla nee na ñuy def loolu yaxsuruhum dana leen dajale dana leen pang allahu yàlla fi wujuhil kilaab yi ci jëmmi xaj melo xaj yàlla nee na yomal xiyaamat ñooñu bu ñuy dekk xaj la ñu doon xam olof léeg-léegi bu bëggee xas ni naan ko doomi xaj yaa ngi dégg doomi diw doomi xaj la maanaam xaj mooy ku bon rek ku ku ku xees ku suufe melokaan yi ne ku ko mel yàlla nee na kooku xaj la yomal xiyaamatu buy dekki dama koy def xaj du dekki ci melokaanu nit ndax jikkooy xaj la yore mooy jëwkat yàqkatu der rambaajkat koo xam ne dafay fekk nit ku set mu wax ci moom jikko yu bon yu ñaaw askanee ko ko ngir lan ngir bëgg nit ñi bañ ko contre yàlla nee na ñooñu bu ma leen dajale yomal xiyaamati di leen dekkil dama leen dajale ci mbooloo mu fekk ñu ngi nekk ju ay xel bokk na ci rambaaj am lu ñaaw ci nit ki moo xam vidéo la moo xam audio la moo xam lu moo doon tasaare ko ngir lan ngir yàq deram tey ma yàqal de tey soobu yàlla da nga xam ne man yooyu bokk yàq ñu ne yàq kooku lu mu lay jëriñ xattaa bu amee lu ñaaw ci nit ki suturaal ko bu ko génne gu génne digganteem ak boromam la boo ko mënee laay biir nga laay ko biir na ko mu bali hmm? waaye tasaare ko après loo ci jublu yàq deram loolu dëgg la sax waaye xaram la rambaaj la rek koy def du dugg du dugg léegi nag am ñoo xam ne ñu ngi yàkkam ci benn audio buñ am ci yow génn ko saare ko am na sax ñoo xam ne dañuy denc uju jàmbur carrément denc ko ngir occasion bu xew rek ñu génn ko am ñoo xam ne dañuy denc vidéo jàmbur dara leen denc ko fukki at di xaar action xew rek ñu génne ko pour yàq deru wàcc kon bépp wax yoo xam ne yàq deru nit ki mu ngi ci jublu pour ay nit contre ko wala benn nit contre ko wala yàq digganteem ak ku mu a doon rek yoo xamante ne rambaaj ka nag <coughs> jëf joo xam ne yàq der moo ko tax a jub kooku jëfi rambaaj la boo doon wax loo xam ni sa dëgg la war nañ koo wax waaye ba nga koy wax jubluwoo ci xettali nit ñi ak jariñ leen mais lañ koy jublu moo yàq der ba tey rambaaj même bu dee dëgg la yow yàlla dafa mujj duma la waaye du la fayet fayeti ci sa wax jooju hmm? kon rambaaj ngoogu lu yàlla bañ la wax naa ne nag borom rek lay lor ndax da koy dugal safara waaye du ko jëriñ axrajo génn na xadis ba ibnu xibbaan dee leen wax lu rafet ci doomu aadama yi wa quulu linnaasi usna jëfit yàlla neen wa axsinu jëf leen lu rafet inna allaha yuhibbu almuxsinin yàlla dafa bëgg ñooy rafetal wa maanaa wujuhul kilaab maanaa kanami xaj mooy suuratul kilaab melo xaj melo xaj la ko yàlla dékkile am na ñu mel nii nag am na ñoo xam ni mën nañ laa xool ba xool la wax la jikko yoo xam ne nii yow sax dafay jaaxal jikko yi jikkoy kan la ni diw nii la mel naa la mel lee ko tax a jug lii lee ko tax wax fekk yëpp dara du ci dëgg <coughs> wa qaala wax na sal yàlla doroko alayhi moom wasalam dorok mos yonent nee na nii bu ma jottali ahadun kenn min asaabi samay saxaaba an ahadin ci kenn ci an mune ne bu ma kenn sama sahaba yi nettali ci nit dara lu ñaaw xaw a yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo war jubanti sahaba yi waye nee man luma xamul bu ma ko kenn wax bu ma kenn andil xibaar bu ñaaw jire ci nit xam nga nit ñi man a diw de diw de nangam diw nangam diw na yonent ne man bu ma kenn wax dara bàyyi ma rek man lu bax li ma xam ci nit ñi ma genn xam ci ñoom loolu bu leen ma xibaar bu ñaaw ndax lu ñaaw li sa digganteeg sa borom la yàlla koy fay allahuma lu mooy nag muy loo xam ni boo ko génnewut la mu yàq moo ëpp mbir mi <coughs> da xool maslaxa ga su dee boo noppee dana yàq lu ëpp loo xam ni boo dana yàq lu ëpp lu muy yàq boo waxee soo baa nga wax mooy gën mën guy law di yàq nga teel koo wax ñu dindi ko moom moo su fekkee boo ko waxee du lor lor wu ëpp amaana bu dee boo ko waxee ne la muy lor moo ëppoon sax nga ba fa mbon ga soo boobaa da nga war a te mu yenn ay yu ndaw yi nga xam ne rëcc rëcc la manqué manqué doomu aadama la yooyu jërul di wax ah yow de diw de eh, démb de def loolu lay jëw nee na sa tànk bi de dafa dëng waaye ah, loolu loo ci wax nit ki jiw di nee na yow baaxoo dara loolu ci wax ban njëriñ la hmm? Hmm? ah yow de jiw de maa ngi ko dégg mu ne mu ne neexoo ko moom bu la gën a bëgg waaye te démb maa ngi ko dégg mu ne yow neexoo ko na bu leen andit saar wax yi nga xam ne rëcc la ci doomu aadama la mën naa am sax nit ki gëmu ko kay làmmañam moo rëcc mu wax ko wala dafa mer wax dara wala dafa am lu ko lu ko leerul mu réagir fekk du noonu yooyu da koy jéggal nit ki mais bu ko jàppee bul dem nag di ko jottali kam ko wax dëgg la wax na ci nit lu ñaaw mais bu ko ko wax parce que boo ko waxee seen diggante dafa yàqu waaye mën naa jàpp ne diw noonu am la sax ah ma neexuma ko baax na léegi nag commencé koo bañ te fekk wallaay mën naa am sax affaire bi yeggul woon ci xolam. Hmm? Hmm. yu mel noonu bul ko génne <coughs> bu amee it mbon gu xew te boo ko waxee mu yàq lu ëpp yooyu it bul ko génn bul ko génn. Hmm. lii la yéen a saxaaba yi bu leen ma nettali benn xibaar bu bon. téen ndax fay nii naka man uhibbu danaa bëgg an axruja ma génn ilaykum jëm ci yéen waa naa te fekk man salimu sadri aji mucc dënn la dama bëgg bu may génn sama dënn bi du ëmbal kenn dara dafay nekk dënn bu mucc boo xam ni jàppalul kenn dara nga di gis ne yonentu lu baax baax baax baax bokk nettali xibaar boo xam ne dafa ñaaw ci nit tax mu mu xaw a kontu ko rawatina ku dul yonent bi sallallahu mu ne nag moom bëggul jàppal kenn dara dafa bëgg yore dënn mucc boo xam ne jàppal benn mbindeef dara kon bu ko kenn nettali lu ñaaw ci nit lii danaa yonent sallallahu alayhi wasallam ndax léegi mën ngaa bëgg nit fonk ko nit ñëw wax la ay wax yu ñaaw ci moom ba nga commencé ko contour ak ak te pourtant dañ laa jottali ay xibaar yu ñaaw kooku la jottali rambaaj la loolu mooy rambaaj pire. yaay diw di nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba nga commencé diw moom te bu njëkk bëggoon waaye xibaar yu ñaaw yi lay wax yooyu moo dem ba ba ba nga commencé koo bañ. yonent nag loolu lay bañ moo tax ne bu ma kenn wax lu ñaaw ci nit man man dee leen ma wax yu rafet rek ndax dama bëgg bu may génn dajeeg nit ñi fekk maa ngi yor xol bu mucc. boo xam ne ëmbul benn doomu aadama safar kon bu fekkee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo koy wax lu ñaaw ci nit ki mën naa tax sax mu dem ba xaw koo jàppal dara rawatina ku dul yonent bu leen di tasaare lu ñaaw ci diggante nit ñi bu leen di toxal wax yu ñaaw yi yàq loolu mooy rambaaj rambaaj du wax ay fan rek de xataa li ngay wax dëgg la waaye dafay yàq rek amul lu muy jëriñ te taq taqal diggante nit ki nit ñi rek la kooku moom moytu leen ko waaw su ko defee bunt boobu moo di jàngale rambaaj yéen incha allah musal rawaaw soo ne ko tirmisi wa abu daawuda ak abu daawuda ñoo solo xadis bi in uridu lislam mastata'tuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu